waaw fi ma toll mooy si li ngeen ma fekk rek di waajal ak sama waa igri igri Lamsar maa ngi waaj ak ñoom di entraîné booba léegi di nekk si loxo père Aline Diop ñoom Maxime Mbargaan père Moussa Boxeur ñoom ñëpp ak sa waa waa Zeyzen ñu dégg entraîneur suñu papa Mor Fadam mu ne guy gi bañ doon gis bu jëkk ba mom la sénégalais yi gissat kérok le 29 bu ngeen sa yeggee yeen ñaar lool noko déggé wa suma papa mo fa maa ma ngoy nuyu da papa man dama ko naw lool ci ay kàddoom ci talibé bi waxon nako dama koy waxal dama ko fonk dama ko bëgg wa té lum la wax non ci guuy gi lu am la gis nako entraînement lepp indi nako wa mé man lool la bëggoon. lu tax nga bëgg loolu. wa ndax yaakar na né képp kuy wëri xaré yaakar ñaan nga yalla jàkkaar ak te ay mboqam ñëpp nee nañ guy bu ñu gisoon moo nekkaat noonu kon sant yàlla. dem démb gis nañu waa Géejawaay yëpp génn bañ moom ñu dégg ko si ay kàddoom mu ne kele bi lay daan bala Gaye de jox na ko ko loolu bi ñu ko déggee noo ko déggee man guy gi laay bëreel maa ngi préparé sama combat man ak guy gi di ñaan yàlla le 29 yàlla may ma ndam. ñaar dañu gis ne fi mu ne dañuy wax ko te doole ñu jàpp ne guy gi dala ëpp doole est-ce que Siteu day nangu loolu wala déet. képp si làmb ji. suma mémoire jàpp naa ne ëppoo ma kàttan ëppoo ma jom man gaynde laa tarkindaa laa da nga da ki nga xamante ne mooy Zoss nga door ko mu daanu tey nga ñëw di bëre ki nga xam mooy Gouy Gui mais est loolu dina facile nga dóor ko mu daanu ak yow noo ko paree pour le 29 allah. waaw bëre door lañu wax lu ne mën na ci am mais man yalla na am ndam rek lu ma ko mën a amee yàlla na arbitre yëkkatee sama loxo noonu door mu daanu bi koko wax moom ne da ngaa door sos mu daanu yow nga door ko mu daanu mais moom ne moom mooy maire kaw bi maanaam kaw bi fii lay leer seen diggante waaw xam nga moom mooy bàyyi xel kaw ba léegi man de fàtte naa sax lay xewoon man li nekk sama kanam lay xool stade Léopold tamit dañoo gis combat bi fa mujjee pop nit ñi fa ñëw bari Siteu ku ko wax wax mbolo tay ñu gis fi ni mu mel est-ce que mën nañu xaar buñu ñu dimas mbolo mbooloo mi mi ñu le 31 ñu gisaat ko fa le 29. waaw inshallah yalla yàlla mun yalla lu mu mën loolu ci gëna ndaw mais ma ngi woo sumay supporter yëpp ñu ci ñew ñëw bu kuy bëggee Siteu wax man mo ndo ñoo ñoomay supporter aduna ñoo bëgg mais ma ngi nuyu suma fans club wa Siteu family yi. est-ce que am na lu muy moytu ci guuy gi aw ma lenn lu muy sumo si aw ma lenn lu muy sumo dara la du moytu sumo dara guy gi mag la man xale la mom na taxaw man may ñew bu def dara na mel ni kuy photo rek. yow nga ne yow xale nga mom mag la te guy gi na jël na ay millions mu def ko ci yaramam ngir fas yéene ak yow est-ce que loolu waru la jaaxal. mais xam nga ki feebar ba faju ki feebar ba faju ak ki nga xam yalla yàlla mosu koo feebarloo est-ce que yem nañ. yow la koy laaj. wa mais guuy gi luma bëgg ci combat man la wara def barke alxuraan guuy gi lu ko bëgg ben fan bëgg na ko fukki fan ak ñaar ndax lima top té encore Mama Samba borom gàcc nuyu naa ko. côté violence maanaam pour jàmm am ci stade bi Siteu lu muy wax ay ay man supporter ay noble lañ samay supporters soo leen xoolee mu xam ay noble lañ. man woowuma kenn man si jàmm laay woo ñëpp man kese gaynde man man dama samay xam na ñu sangu ba set doh nang rafet dox nang wax nang ñew bu ñewé ñu tok man may def lepp bor la rek man mako lepp ci si xaaliss bo xamé man mako lepp ci ñom war leen ko fayat lima leen di fay nak moy ndam dina leen ko fay inshallah rabbi man de suma kele Serigne Sidi Mbacke mo ma jox mo dem beuri Serigne Sidi Mbacke wu yang yaa may dégg xam nga noo neex la yor momay jox clé bi mu dem daan guy gi ñëwaat incha ci côté ambiance dañu dégg sang Jili Seck mu tëgg Café Touba bëggon nañu xam lan moy Café Touba nga ma gis nga fecc ko. waaw xam nga né instant bi ni interview bi mo daax mo ñëgg ka baax bi ubi leen seen bët xool kaasu Café Touba. loolu moy lan. manam woné sama cofeel ci talibé ci Baye Fall gi ma doon dama ko bëgg dama ci fier té aussi tamit dafa am ci lo xamantene ci laa jóge ci laa doon ba tey sotti ak def si la man suñu waa kër ñëpp ay taalibe seex lañ kon maa ngi nuyu képp kuy taalibe seex maa ngi lay jox sa wàccuwaay ba ma juddoo ba léegi mosuma tardé gàmmu mosuma tardé dara yi su ma mag a ngi nii caat man murid laa moo ma nekk tijaan kër gi daa neex rek sotti ak def si la yaa ngi dégg di wo ñepp képp kuy kilifa diiné ak ku mu mën doon ma ngi lay fekk fi nga nekk di lay jox sa wàccuwaay te aussi tamit dafa am ñuma dëggal muy sumay mbokk njaago man damay dem sax mees man parce que sama kër si buntu église bi la nekk. Siteu tay ñu gis ni Siteu tay ñu gis ni am ñuy dégg ñu wax ni yow da nga feebaroon ba taw taw gu met ba da nga jeex tak mais loolu loolu su mëna wax. loolu du ma ci wax ndax daluma loolu mosuma dal kon du ma ci wax.